man à l'époque je disais à certains amis ñi ma mënoon discuter Pastef que même à l'Assemblée nationale que gars yi moytu leen leen dafa am fu ñu bëgg dem ak yéen te bu leen leen yombaral. dañ leen tendre piège. fu ñu bëgg a dem ak yéen te boo bëggee euh, yor réew jiite réew nekk ci ay institutions comme assemblée nationale am na ay postures yoo xam ne boo ko defee rek da ngay faciliter mbir mi gars yi. parce que euh, boo toogee ministre de l'intérieur toog ministre justice toog ay généraux toog seen ministre de des toog ay généraux toog seen ginnaaw nga wax leen assassin sàcc ngeen nangam nangam règle règle bu xam nga sànq maa ngi wax ak état bi di wax règle règle de courtoisie d'élégance bu assemblée jox bu la assemblée exiger pour que nga mun a am dignité bu ñu lay wax honorable aar la ba nga xam ne gendarme bi mun la laal bien que yaa ngi koy saaga wala yaa ngi saaga supérieur am ak keneen keneen loolu moo la war a tere nga jël yenn posture nga versé ci benn façon discours bi. posture bi. là vous parlez de Guy Marius Sagna. non je parle de de manière générale de tous ceux qui de ont cassé des meubles euh, bone kii ci loo xam ne parfois il faut le reconnaître man <laughs> je l'ai dit le jour de l'installation de l'Assemblée nationale mais li ñu tegee règle bi pour dem aux élections mais c'était la la règle mais c'était la règle c'est-à-dire que ni assemblée bi newee nañu defee élection ci ouverture législature bi loolu moo doon jaadu gisuma woon gisuma ci woon benn gàllankoor. gisoo ci benn entorse à la règle. gisuma ko je l'avais mais même boo amee en entorse duni damay taxaw ci table bi damay amuloon entorse ci sama gis-gis mun nañ ci def débat nag mais sama gis-gis je suis libre aussi il faut reconnaître aux gens dañuy nangul nit ñi nga am kii gisee nii kii gisee ne kii gisee ne le parce que <laughs> je man j'étais dans le gouvernement bokkuma gars yi gis-gis ci yenn yi je le donc bu ma nekk opposition bu ma ne bokkul gis-gis dama koy wax mais bu ñu ma saaga la différence c'est que Macky Sall mosuma saaga pour kii wala wala wala menacé ma wala gëdd ma je le ne donc gars yi bu ñu leen xëcc ci benn kii bi il faut il faut aussi man wax naa ko wax discuter naa ci xam nga man du mu bokkuma ci ñoo xam ne gars yi dañuy jàpp ni way waa ji non discuter naa ceeg ña ma ci mënoon discuter moytu leen li fi ngeen fi ngeen parce que si j'étais de l'autre côté et parce que même bu ma nekkul woon de l'autre côté war naa xam état la ma war la mu war a nangu wala lu mu warul nangu ab général du toog amul droit à la grande muette amul droit à la parole amul droit kii wax ko loo xam ne mais saa waay man boo ma ko waxoon bu ma la mënee régler sa compte ma régler la sa compte donc faut dire que réew mi dañu toll ci situation boo xam ne y a une frac y a des fractures yoo xam ne mënutuñu dafa mel ni mënuñu déggoo mënuñu toog mënuñu bokk mënuñu bokk ndab mënuñu discuter ci dara ñun dañu bëgg buy weesoo élection yi ñu pencuwaat Sénégal ci kaw ci kaw dëgg nag c'est-à-dire que dégg nga sànq ba ñuy wax ci pétrole bi wax naa ni kii jëloon alalu réew mi ci caax caaxe ko warul duggaat loolu dañ ko war a leeral amul benn problème mais ci kaw leeral bi bu ñu naree encore jëlaat deux ans trois ans ku ku wor na tamit da nga goqi waaye ci biir goqi ki tamit mun nañ la mocc ba nga goqi <laughs> waaye jëli sa maamu séeréer yi comme ni daan def <laughs>